asalaamaaleykum mbokki Pikine defe naa ne dina nuyu mbokki Pikine. waaw Pikine bis laay nuyoo yow ban Pikine ngay nuyoo. man Pikine rajo laay nuyu ak Pikine TV. ak Pikine TV ñoo ngi fii ci digg Ridis defe naa ne dend ak Cheikh Bakary surtout buri suñ ko mëndoo waaye dend seex Cheikh Bakary taalibe Serigne Cheikh Oumy Mbacké bi waaye dend ak Cheikh Bakary taalibe Serigne Bara bi waaye dend ak Cheikh bay Baye Fallou Serigne bi bay Fallou Serigne tubaab bi Cheikh Bakary ñu ne yàgg na. ci social ah leer naam leeru Cheikh Bakary dinañ ko leerale léegi fii rek lay leerale ci Pikine Biz Cheikh Bakary lu tax mu tuddee mouvement bi mouvement yaakaar aide pour le développement kon dafa mel ne yàgg na ci aide di jàppale ndax xaarul boobu mel ma di kër rek jot Cheikh Bakary lan da nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale ay nit wala da nga ko judduwaale wala dafa la dab lu tax nga am fitu jël ñàkk sa lépp ngir nit. sëñ Fall dafa ne jaamu yàlla ci yàlla yi. te ñu dañoo bëgg jaamu yàlla moo waral ñu fas yéene jaamu yàlla rek ñaan yàlla nag dërëm bu ñu yàlla may itam nañ ko bokk jaamu yi jaamam ñi ndax àdduna yàggul diir bu gàtt gàtt la gan nag bu gën a gan gan nag bu gën a gan gan ko du yàgg loolu rek la waa dëgg la Cheikh Bakary mais dañu gis ni da nga ñime yow xaaroo da nga yàgg ci social lu tax nga ñime yaakaar yàlla rek yaakaar yàlla yaakaar Mohamed yaakaar Sëriñ Touba yaakaar sunu jàmbaar ji Alaaji Cheikh bi Mbàkke moom Sëriñ Cheikh bi ku leen yaakaar nag yaakaar naa doo tiit li rek xew. mais bi may ñëw ci weewu bëy dafa am lu ma dab ñu naan Cheikh Bakary dañ ko bëgg a fal meer loolu yaa ko lan nga defal nit ñi tamit loolu. mën naa nekk ndax ci réew mi lañ dëkk te fi nekk maire gënuñu tey wax dëgg yàlla ñun lu ñu am lu ñu am rek fas yéene ko delloo ci ci jaam ñi. Cheikh Bakary loolu métti na de pare nga sa duñu tiit alal sëñ Tuubaa lañu. kon ku la fëggoon fëggoon léegi jox la maire bi. jekk naa. kon sëñ bi ñaanal ñu. waaw xéwal rek barke sëñ Fallou. bu rek jox ko suñu